Euh, nga gis ko Lat Diop Degen Mbaye Maria Sine Maysa Bigué Maysa Bigué Mara mbokkum ndeyum Alaaji Fallou Benjamin mais Benz daa mel ni waykat bi ñëw na de. waaw waykat bi ñëw na moo tax coole bari. Ah? waaw ndeysaan moo tax coole bari. xanaa jinne yi la àndal <laughs> xanaa jinne la àndal mais. jinne yi ah. mbaalu. Ah, gis fu jaar coole bari lu xew. waaw ah, suñ borom rek. suñ rek. macha allah mais gars yi organ nan ko organiser rek. nan ko organiser ndeysaan <laughs> fan si Go! effort de Mami Doye la effort de Mami Doye la.

ñi topp ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jaajëfal ci teewlu bi tey nag ñu ngi fi nga xam ne moom mooy marché Zinc ñëw ci centre commercial Batora tey ki ñu fi indi bokk ci muy Omar Chauve ngeen xàmmee ko bu baax doomu Ndeye Waly Seck Omar ñu ngi leen nuyu bu baax di la ziar. waaw ah, maa lay fay xaaj. di leen nuyu bu baax di leen nuyu di leen ziar ak yéen ak seen waa équipe bi ngeen àndal di liggéey liggéey boo fet ñu lay suivre vraiment ñu lay nuyu yëpp di leen jox ko si nekk sa wàccuwaay. alors tey nga dajale ñi nga xamante ni ñoom ñooy star yi laa ko mën a tuddee fi nga xamante ni moom mooy sa place ñu bëggoon a xam objectif bi lan la tey da ngay inauguré wala tey da ngay def lancement décembre. non <laughs> wallaay inauguré wu ma defuma lancement defuma dara parce que nit ku la yëg doomu moo la sonal. ndax yàlla xam na ne démb Médoune mi mooy sama seede si laa soog a xam ne wàll dafiy ñëw yàlla démb démb laa soog a ne wàll dafiy ñëw dafa toog a toog temps yee la ma woo ne ma dama bëgg ñëw sa boutique wax dëgg yàlla mu doon ànd bu sincère it sama diggante ak moom ndax it li may wax xañ na Médoune mi doy na ma si seede sama diggante ak moom du tey ba may jaay mbuus la woon te boobu kenn waxagut Omar Saba Omar mbuus lañ daan wax ma ko daan fekk ak apes mu fay tëgg te loolu Médoune mi doy na ma si seede bi nekk wàll fa doy na ma si loolu du tey démb la kon tey bu ñu demee ba tam moom wax na ko keroog euh, ba mu ne nee kii ba ma koy xam Omar Waale tudd tudd Omar Saba kon sama diggante moom du tey ñëwu fi ndax relation Omar Saba ak Waale Seck de dafay ñëw diggante mag ak rakam ndax li may wax rek la ma boole ak moom weesu naa seba weesu na leneen boo maa ngi jël mbuus di ko teg fii dëkk bi ñu mas asalam di ambulant mu fekk ma marché asalem sama biir nawle may jaay mbuus mu yëkkati ma teg ma si kaw ne xale bi na ngeen ko ñaanal loo yàgg na du tey kon bu ñëwee fii tey xañ na day beesaa si bëtu nit ñi mais man beesu samay bët wax dëgg yàlla mu doon lu force si ma nit mu nekk sama mag sama lépp sama conseil amul lenn lu may def te yëgu ko télé bu gën a ndaw buñ ma fa invité ko xaajagu dina ko suba dina mu ne ma booy demee waxee lii waxee lii waxee lii waxee lii amul lenn lu ma boutique bii la ko sos ba nu mu toll nii amul lenn lu ko si ump wallaay un jour jàppale ma sama combat jàppale ma sama liggéey jàppale ma si lépp lépp lu ma nekk lu ne mu ngi ma siy jàppale di ma soutenir vraiment si dooleem ak si xelam te loolu dong lay xaar si moom it encore une fois loolu dong la def si man wax dëgg yàlla mu doon koo xam ne bésu tey bi wax dëgg yàlla bokk na si bés ma gën a neex si àdduna ndax lii man leex na ma ku ko bëggoon a def loo di nga yëkkati millions yu nit fay na ko xaay bu di jàppale mu defal ko du ko defal te moom moo taal essence am moo taal otoom sama dërëm demu si lépp moom ko def ma damay ñëw tey sa boutique te loolu doy na ma sëkk wax dëgg yàlla. gën ma jëmal loolu kese la. mu doon nit ku man nitam nag man du ma ànd ak nit si tuux du ma ànd ak nit si alal du ma ànd ak nit si daraja du ma ànd ak nit si nu mel man nit ki ni may jàppee noonu la lay jàppee. boutique bi kii doon na ma seede Médoune mii man lu may wax day am seede kii ba mu ñëw boutique bi nekk TFM boutique bi nu ndaw la boo taxawee keneen du taxaw. te yàlla def mu yokkaat ñoom ñii mu ngi nii man lu may wax ah, mu ngoog lépp ñoom dañ ko fekkee. dañ ko gis nga buy buy géwal di tuddee waale le centre du peuple boo maa ngi marché asalama sama kanam la maa taxaw si buntu oh, boo maa ngi boo marché asalama woon mu ne ko le centre du peuple buy géwal moo ko tuddee woon sama kanam maa ngi taxaw bi mu ko interview maa taxaw si kanamam kon sama diggante ak moom du tey amut lenn lu may def lu ko ëmb te chaque fois da si bëgg ñëw mais lii lay bañ gis ngeen lu fi xew tey bu yàggoon nag musiba dina te yàlla xam ne ne bi muy ñëw dafa amoon yéene pour wax ak am yéene pour wax sama diggante ak moom am yéene pour jàppale ma sama liggéey mais gis nga ñaan bu nangoo sonal boobu. côté côté sécurité bi parce que gis nañu bi Wally Seck duggee fii dafa dafa bëri nit yu nga xamante ne ñoom ñoo fi nekkoon am na sax ñu tàmbali woon di dugg ci place bi pour raison de sécurité peut-être moo tax mu daal di dem. bien sûr parce que soxna si man xaw ma fu nit ñi jógee yow yaa ngi ni bu max naa la sànq dama mujj am kersa jaaxee ngi ni laaj ko dama mujj am kersa puus naa la tayuma parce que man xaw fu nit ñi jógee dama toog a toog a gis nit ñi du yegg sax xaw ma fu ñu jógee te it li mu wax dëgg la nit ki boo doo xam na scandale dina am te xam naa li tax bëggut a toog te bu toogoon man xam naa ne bu demee man dinaa am lu ma def mooy lan dinaa defaraat sama boutique te gis nga bu mu ñëwee taxaw dafa ñëw nga ne ma tàllal loxo ma ñaanal te ñaan gi ma ñaanal wallahi dafa sedd sama xol ndax mag mooy bàyyi te wàlli du sama xarit sama mag la wallahi bu may wax si moom sama xol dafay tooy du sama xarit sama mag la waxtu wu ma neex laa koy woo waxtu wu ma neex laa koy envoyé waxtu wu ma neex laa koy laaj benn lu amul leneen may dugg te moom joxoon ma si conseil ne ma defal nii wala defal nii li may wax laay la seef mu ngi nii mooy sama seede ñoom Medoune ñu ngi nii amul leen lu muy dugg tamit Medoune a ngi nii laay la seef a ngi nii dama si am ay seede parce que moom dong man bu ma doonee Omar ba léegi billaahi wallaahi mosuma taxaw boîte du duma dugg boîte liggéey laa gëm wàcc te dina la moom dong moom ma jaral ma taal sama oto guddi dem soirée ñëwaat tëddaat parce que fi mu toll si man moo tax gis nga soxna si yëg mooy lépp gi nga yàlla suñu borom bu waxtu julli jotee julli ngay julli yokk ko dara boo ko jullee wàññilu ko dara mais xam nga lu mu soxla yëg gi nga yëg ne waxtu yu jot na nga bàyyi lépp li ngay def dem julli ko te loolu la doomu adama soxla si moroomu doomu adama mu yëg-yëg te wàlli dafa man nitam vraiment c'est c'est très content kon nga xamante ni dañuy wax que ni quand yéen yéenay jël seen xaalis di ko tuuraat ci Wally Seck pour am tour wala pour am buzz tey loolu noonu lan nga ci wax <laughs> waaw parce que ñuy wax xañ xañ na ñoom danoo xamut Wally wala danoo danoo xamut Wally démb tey soog a ñëw parce que yaakaar naa bu doon xaalis ay indi wàllu fii si Omar Sëba wàllu du fi teg kànkam yow loolu xam ko ndax it gisuma lu ma ko mën a fay moom ba tax mu ñëw si boutique bi gisuma ko déedéet waxtu woo neex ak woo ko bëggee wax ma mu ñëw si boutique bi ba démb démb bi ñu jox ko téléphone ajjuma melu na ngi ne vendredi la bëggoon ñu ñëw ma ne ko dafa jàmp mu ne ma neen ko dafa jàmp laaj la seex mu ngi nii ma ko noonu neen ko bàyyi samedi mu ne ma c'est bon ndax balaa may dem deux heures fa jaafa def falaas wax ak presse bi dem demaat sama yoon vendredi la bëggoon a ñëw te suba suba su ma bëggoon mu ñëw dama laan ko ñëwaatal parce que sama diggante moom du lii du xaalis nit ki nee naa la da ngay toll ak moom foo xam ne xaalis du leen boole man du ma ànd ak nit ndax dërëm du ma ànd ak nit ndax ni mel du ma ànd ak nit ndax lu mu doon man nit ki da nga may yëg ma ànd ak yow te wàlli daf ma yëg dafay firndeel que nga xamante ni dañuy wax que ni artistes yi maanaam amuñu xàmmeel maanaam euh, ku nga xamante ni dund nañu ak yow après dañu koy fàtte. waaw parce que loolu xañ na ñoom artistes yi ñu moo tax mais ku xam Wally démb xam ko tey wax dëgg yàlla man mi ko xam démb man mi ko xam démb xam ko tey doon ko topp akapes topp ko penc mi ba tey muy ñëwaat fii si boutique bi xam Wally démb xam ko tey doo waxee loolu parce man nag. bu ma la waxee na te yàlla tax awma relation ak benn artiste man waa non non parce que man dama concentré wu sama bopp si toog mais jëmm ji dafa doon koo xam ne si man dafa rëy si man te dama daan dem kër DJ Boubs Assane Grand Yoff boobu DJ Boubs mu ngi dëkk Assane Grand Yoff moom Waly mi mu ngi dëkk Assane moom ak Aziza ñuy ñëw kër DJ Boubs chaque dimanche maay fréquente ak ñoom boobu maa ngi wër di jaay mbuus déggoo la ma la wax yàgg na mbedun bi mooy sama loolu yàgg na ma boole moom du lii wala yanzil du lii ndax xaalis du dara lim def ni tey bu doon bu doon xaalis du ko def mais xoolal tey coono gi mu def fii pour yéeg fii xool ko te nan la jënd essence am xaw ma am yéene si man ne ma damay ñëw sa boutique seet waxu ñu la neex ma woo ñu ma neex na leen wàlli daay ñëw si ma boutique chercher ma c'est tout loolu dong la sax. tey ngay ànd ak moom te ku nekk xam na ni jamono ji coow sow biis am na ci réew mi ngay ànd ak Wally Seck mu nekk sa xarit tey chaque at ak lu nga xamante ni peut-être tuumaal nañ ko ko wala chaque at ak li nga xamante ni jiiñ nañ ko ko yow nga xam ko di ànd ak moom tey boo déggee yenn kàddu yi ñu koy teg ci kaw Wally Seck. ñaaka xam xam nga yow buñ la laajee si Médoune yow xamoo Médoune te nga doon ko ñemee yàlla te mën a wax xaw ma da wax li nga sant fa loolu kese moo xam mais nit ki bala ngay wax si moom da koy xam te xam nit ki yombut te nit ki loo ko xam-xam moo la gën a xam boppam. te ñun Sénégal nag dañoo am benn sikk dañuy bëgg di wax si nit ki te xamuñu ko Sénégal moom du ne xaw ma sénégalais du ne xaw ma hmm, jamais dégg naa yaakaar naa foog naa gis naa te nit ki xam ko dafa jafe nit ki xam ko dafa jafe. Sénégal nag dañoo bëgg di si di ta xamal ko mais ku xam Wally xam ban façon nit la xam ne waa dëgg yàlla alalam sa lay jëy di ko def si nit ñi. comme quoi. li ci xew. lu ci sa fils ak duma sa fils maa jur Sidi Diop dégg nga ko Wally Seck dégg nga kàddu yooyu moom. non man dégguma loolu. ah déggoo li mu wax njàpp. lu kan wax njàpp. Wally Seck. lu mu kañ la ko wax la. soirée Vogue. quand mais njàpp dafa dem. man sax dafa dem pour fecc waaw non dimanche ma commande man dimanche du ma baale. jàpp dafa dem man commerçant la man du lëndi laay liggéey dimanche ma noonu. mais jàpp dafa dem fecc ba pare ñaan ko oto mu ne ko euh, peut-être yow yaa ngi ci yoon yaa sa yaa sa patron yéen ngi ci yoon bu leer. ba noppi ne ko njàpp euh, ne ko yow yaay sama papa mu ne ko yow ak Sidi yëpp man maay seen papa alors loolu nag dafa jur polémique ndax tey euh, jaadu na Wally Seck yëkkati kàddu yooyu. jaadu na Wally Seck wax lan. wax man loolu dégguma ko baal ba ma dégg ko ma soog sa tontu wax dëgg non dégguma ah, man samedi laay bàyyi samedi lu xew foog dama ko yëg lu xew bàyyi mu dama ko yëg bu dee dimanche nag man du ma jënd dimanche ndax lëñ damay xëy liggéey loolu moom su bis moo ko déggee naa mais ban gis-gis nga am ci loolu est-ce si dara lu ma xamul lu ma si wax loolu xamaguma si dara dara d'accord ah. alors ñu ñëw ci sa ndorteel parce que gis nañ la sa place bi nga xamante ni yor nga ko mhm. euh, nga ci daan sa doole euh, est-ce que bi mooy sa première place fii 2019 nee naa la mercredi laa ko ubbi jeudi vendredi samedi dimanche lundi ñii invité ma yeewu leen li may wax dafa am seede kii moo gàddu caméra bi place bi pour su ndaw la woon gis nga lamp yi fu mu toll ne gis nga fi lamp yi toll foofu la ak lee pantre la woon kii moo ñëwoon vidéo yaa ngi ni sama téléphone moom ànd ak Mado ñëw di ko filmer dama ko ubbi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche lundi ñu teg ma yeewu leen man nettali sama jaar-jaar soxna si man sept ans laay jaay mbuus mbuus yi ñuy paquetage demal marché asalam nga laajte kan mooy Omar Sëba ngay dégg boutique sëñ ma boutique ji création bi daan dégg maa daan jaay mbuusu paquetage bu ñëwee ba pare li mu si sol maa ko koy jaay demal marché asalam nga laajte ma bi ma jaayee mbuus toog a toog ba si yàgg mooy bi état bi ne dañoo interdit mbuus ah. mais xàcc boo gis wa si gooy la ah, yàggul man 2019 laa ubbi fi soxna si est-ce xam nga ne deux mille bi ñuy bi état bi ne dana interdit mbuus ci laa commencé bàyyi mbuus yi teg ndànk di ko boole ak sëfa yi di dugg si boutique yi di rangu la ma amoon si bénéfice si mbuus ma jëndee ko moto di teg di dem fi ba ay ñàkk ay ñàkkuraat di def vente en ligne di ko def di ko def mu gis ma utal sama bopp salaire benn waay bu daan góor mbeng bu nekk commencé asale moo may dégg man lu may wax daa am témoin ma ne ko dama bëgg chaque fin de mois may fay góor na ma loolu noo ko mënee ma ne ko dama bëgg man li may wax ñëpp ak may seetaan chaque fin du mois ma ñëw ne ko bindal ma 500000 maa ko fay sama bopp mu ma koy bindal ñuy dama dem ba si yàgg ma ne ko ñaata laa fi am mu ne ma 11 millions 500 ma ne ko maa ngi 1 ñaata la du 12 millions 500 loolu si laa ubbi sama boutique bi mu nekk poko si ndaw bi ma ubbee ba pare dama xeeb sama bopp ndax gisuma gisuma ba ma arrangé sëba yi mënu maa gis benn sëba ndax 12 millions du dara sëba mais gëm-gëm wallahi bi may ubbi boutique aw ma compte bancaire est-ce que xam nga ubbi naa sama boutique 2019 2020 ba 2021 laa ubbi compte bancaire lu ma jaay defaat ko bagage mais dafa am ñu si jàpp mooy li may wax Médoune mi ñu njëkk a ñëw fii si la bokk Waly Seck ñoom ñëpp ku du question dërëm bi ñu yëkkati jox ma non non du question xaalis man soxna si man lijjantuma xaalis ni man yëg-yëg laa lijjanti si nit tey Waly Seck bu toogee scène bi Omar Sèvre loolu am na lu muy def am na effet bu muy def n'est-ce pas am na wala amul voilà tey bi ma koy ubbi métti woon na bi ma ko ubbi ba pare nee naa 3500 laa dese. billaahi wallaahi taala 3500 2000 francs yi ma jël ko def ko essence dese wu ma 1500 ma dem jënd si moom mbuusu meew bu 75 mooy sachet meew yu bële yooyu amaan bi 75 moom laa dem ñun ñaax boole koog caxay lekk ba seet ma xëy si bi may xëy si 1000 francs laa xëy si fii si boutique bi bu ma xëyee jaay naa 500000 di jikko ko daanu jikko ko daanu tey maa ngi chef de entreprise la tey ubbiwaat naa beneen si kaw te tey maa ngi jaay en gros tey. li may wàcce sëba tey Sénégal mën naa wax ne amul kenn ko fi wàcce macha allah la wala wala te loolu du lu ma banque lebal du ma banque bu ne Omar wax lebal na ma nangam ne ko mosuma leb banque bu ma ubbee compte yàggul bi ma jamono bi ma demee ba bëgg a voyage si laa soog a ubbi compte. kon li ngay wax nii ndaw ñi mën nañ cee jaar man sama sama jaar jaar bu dugal si internet bi man li may wax dafa am seede dugal si soxna si man nee naa la dama ñafe du dëemu ndey du dëemu baay lu du ñaanu ndey ak ñaanu baay ñafe ba toll yegg fu ma yogg tey li ma yoon nii sëba yi amul deux bu si dem amul àq nit bu si dem amul boxu nit bu si dem li ma jox naa ko moom te dama ñafe ba yàlla suturaal na ma am ko tey yokkute googu tey laay ñaan yàlla yéene naa ko sama benn bépp morom nag ndax li ma yor soxalu ma si ñaanu ma si tey bi may ñëw fii tey di jaay bu ma manqué laan benn pièce may benn pièce bu ma jaayee benn pièce day jeex du ma ko amaat damay demaat asalem wala ma demaat feneen dem ràngu ji ko ñëw wékkaat di ko def di ko def ñetti at tey maa ngi nii tey di wàcc ay conteneur macha allah ubbi naa fii jaayee en gros macha allah loolu dong la man si loolu laan soxna si man newuma si lu dul liggéey man si liggéey laa ne ku si nekk maa ngi si ku si nekkul maa ngi si lii ma yox dama fay ba yàlla jox ma ko te lépp loo xam ne ñëpp ñoo xam ne xaj nañ si dinaa leen si xajal. alors sant leen gërëm leen encore une fois ndax woote yomb na mais woote ñu wuyu si lañoo ñoo tey yéen ñii bu doon xaalis moo leen fi teew la fi teew yéen bu dee xaalis moo leen fi teewal am na leen lu ngeen war a def mais dangeen dagg lépp ñëw te ki ngeen ko defal na gis na ko tax xam na ko it une fois ñëw ngeen fi ndax ñaar ñëw ngeen fi ndax Wally Seck woo leen te Omar Sëba moo leen woo am na wala amut kon ñëw ngeen fi ndax Omar Sëba ñëw ngeen fi ndax Wally Seck waaye ñëw ngeen fi lu ëmb lépp muy seen mbaaxaay ak seen woyofal kon di leen ñaan yàlla yéen seen liggéey yàlla gën ko la wala ndax it bëri na li ñu xamut si lañ koy xamee man tey lu am si dëkk bi yëpp damay dugg YouTube def direct li xew yëpp yen yéen ay teew si buntu tribunal yéen ay teew si buntu fépp yen ay wàññi ni li xew yéen a ngi nii bu ngeen fi jógee yéen a nga jëm pee surtout maa ngi koy waxtaan ak euh, keek euh, ma ne leen sit internet yi dañ leen war a sant gërëm leen bu leen kenn kenn kenn kenn jëma ku leen mën a fekk may leen doole nag leen may doole ndax bëri na ñoo xam ne tey yéen yéen lay wax lu xew sax ndax fi nga toog nii yaa ngi téléphone mais man nga am télé di ko gàddu di dox ak moom mais yaa ngi sa téléphone lu xew yaa ngi site internet yi di ko xool kon tey jamono mooy dox te yonent bi daf ne dox leen seen doxinu jamono te doxinu jamono nag mooy lii kon ñu ngi lay ñaanal yàlla la fa leen cat may leen li ngeen bëgg seen bébét ku si nekk dem ba yooyu seen entreprise su bopp yéen ñëpp samay nit ngeen bëgg naa leen bëgg ngeen ma yal na yàlla yàggal ànd bi te lépp lu ma nekkati incha allah dinaa leen ko wax te lépp li ngeen nekkati bu ngeen ma ko xëy ma ñëw si incha allah merci merci. may lu mu indi. mu ngi bu ñuul bi. waaw. la. lay la la maar. mën <laughs> yaa ngi gis embouteillage bi. nit ñaa ngi ko topp. tey mariage bi. jëy maariasin déggal kii lim wax Médoune déggal kii lim wax nga ne lan <laughs> maariasin egsi na maariasin egsi nuyool noonu <laughs> fu mu dem mam bur wi loolu la yàlla dogal ndànk ndànk def leen rek def leen ah mi ngi ñaan waaw mais bien sûr jullit la <laughs> jullit bu nekk sa ngàndaay mooy ñaan waaw waaw loolu la yàlla dogal ci moom fu mu dem mu am bur wi fu mu dem mu am bur fu mu dem mu am bur wi fu mu dem mu am bur ah, mënul toog kii mënta xajatul fenn xajul ci stade waxuma la ci bitik mënul toog xajatul fenn loolu la dogal ci moom ah BSM. loolu la yàlla dogal ci moom xajatul fenn mënul toog mënul toog kenn mësul gis lii <laughs> c'est qui est incroyable <laughs> non kenn mësul gi amee ah, tam. non maa ngi gis lii xajatul fenn. fu mu dem mu am bruit loolu la yàlla dogal ci moom.